ci jono ak taskatu xabaar yi nga xamante ni mu ngi ko doon amal Ousmane Sonko daal di na sax xamle nii li nga xamante ni moom moo di opposition bi ñu bëree danoo toog ne tekk ci doxalinu Macky Sall bu mu gis nii rek mu ngi bëgg a faagagal l'opposition ba Bougane Gueye Dany mi nga xam te moo jiite coalition gëm sa bopp moom dafa mel ni ko doon tontu Ousmane Sonko ci benn conférence de presse bi nga xamante ni mu ngi ko doon amal moom njiital gëm sa bopp daal na xam ne nii ñii di wax nii rek dafa mel ni beneen pàcc opposition bi dafa nekk di seetaan Macky Sall muy def lu ko neex mel nam yeewi askan wi moo nekk di xeexeex bi loolee Bougane Gueye Dany xam ne na ni déet demeewul noonu ndaxte ñoom ñi di gëm sa bopp dafa mel ni rek bu leen yàttu parrainage bi dalee ñenn pàcc ci l'opposition ba dañoo toog bàyyi leen ñoom ñu xeex xeex bi kon Bougane Gueye Dany daal di xam ne nag fi mu ne nag jot na ñu bàyyi wax ji te rek fexe joxante loxo ñoom waa l'opposition ba bu ko defee ñu gën a mën a jàmmarloo ak Macky Sall bi nga xamante ni moom Bougane Gueye Dany xam ne na ni pexe mooy fexe daal di faagaagal ñii di waa l'opposition ba te loolee par kenn kenn lay jël ci l'opposition ba bu ko defee nag mun leen faagaagal njiital gëm sa bopp nee na nag opposition bi nañu teg coow lii ci suuf ba pare joxante loxo bu ko defee ñu nekk benn ak say wi nga xamante ni daanu mën a jaakaarloo ak i jaamaarloo ak yi nga xamante ni moom moo di Macky Sall ak nguuram gi